waaw euh, jërëjëf ñu ngi de ñu ngi leen di di nuyu di leen euh, remercier ci seen teewaay bi euh, ci conférence de presse bi dañu bëggoon wax ak postier yi wax ak ak askan wi ci situation poste bi et donc depuis bi ñu ñëwee depuis bi ñu nommé au mois d'avril 2019 et ñu ngi ci liggéey bi donc xam euh, nañu euh, liggéey euh, fii ci poste depuis président de la république nous ñu confier la gestion de la poste ñu ngi waxtaan diisoo surtout ak postier, yi ba tënk liggéey ci plan stratégique liggéey ci vision liggéey ci ay instruments yu loolu dañ dans un cadre consensuel euh, xam nañ nag euh, poste am na jafe-jafe liggéeykat yi aussi léeg-léeg dañuy yàkkamti am résultat parce que dañu gis ne chaque année euh, ñu ngi am ay pertes liñ doon am amandu ko parce que ñoom ñoo nekk ci guichet yi dañuy xam ne exactement aussi situation bi donc frustration bi daanaka bëri na mais loolu yëpp on peut comprendre sax xel mun na ko nangu mais li ñu mënul euh, comprendre li ñu mënul nangu que malgré loolu chaque jour am na ay manifestation am na amna am na am na vraiment heure bi ñun ñëpp waruñu ko tal parce que euh, sooy xeex euh, si mbir bi nga xam ne yow doo danga ciy perte ki nga jaakaarloo da ciy perte suñu entreprise da ciy perte yow loolu ana sa gain ana njëriñ xeex boobu parce que même suñ doon xeex pour euh, d'ailleurs peut-être moo tax duñ si xeex pour améliorer suñu condition de travail heure bi daanaka poste mënul def dara dara dara dara parce que euh, dañu suux on est au fond état bi moo ñu jàppale moo ñuy dimbale pour ñu génn si moo ñuy accompagner moo tax ñoom ñun ñëpp d'ailleurs bi ñu bi ñu waree boolee suñu doolee Syndicat yi ak ñun pour état bi fay ñu suñu bor <laughs> les gens l'ont fait parce que dañu xam ne sinon duñu fay sax salaire yi donc si loolu la ñu war a taxawee ñu jàppale direction générale ñu liggéey pour relever suñu entreprise sinon le reste c'est peine perdue amul solo amul ben avantage donc en tout cas li ma bëgg wax que man champion transparence man xam naa ne su ma peut-être sama milieu carrière donc def am li nga xam ne du def pour kenn donc principe yooyu pour man principe yu solo la sacro si walu transparence d'ailleurs li ñu liggéey si si wàllu marché réforme yi ñuy def euh, ñu ngi koy saluer donc du ñu ñëwaat si détails yi euh, maanaam euh, donc lépp lu accusation yi ñu fi def xam na rek c'est voilà c'est parfois des combats de personnes combat yi nga xam ne combat subjectif la amul firnde donc si wàllu euh, problème euh, euh, problème post finance problème d'abord directeur bi bi qui lié ak problème 1,5 milliard je wax que que poste entreprise bi nga filiale filiale EMS filiale post finance ñu sous ma responsabilité en tant que directeur général. Donc, nous, je suis le seul répondant devant la justice. Tous les jours, chaque jour, nous envoyons à inspection. Dans l'année, Rennes, Rennes, nous envoyons plus de 250 inspections. Et chaque année, problème, détournement des impostes. Nous avons d'ailleurs. Chaque année, nous avons. Ben, ñaar, parfois plus ren nous découvrons découvrir les 1,5 milliard je rappelle que man envoyé na inspection centre ma envoyé inspection aussi centre financier donc am 1,5 milliard dafa bari bi nga chaque jour nous ngi wax amuñu xaliss ñu découvrir lool ça peut voilà Nous mun nañu là. mais situation bi est euh, que pratique tant que amoon nañu xaliss nit ñi mënoon fermer les yeux parce que situation bi dafa yàgg dañ doon jël sur eux ñu lebal xaalis ay travailleurs ay fournisseurs dañ ñu def avance ñooñu suñu jotee seen salaire wala seen chèque ñu remboursé donc situation ñu toléré ko ba euh, cette année ñu ne basta c'est fini parce que ñun ñëpp constaté nañu que dañu am problème euh, xaalis donc nañu gérer de façon responsable affaire donc loolu jotewul dara ak fonctionnement entreprise bi tous les jours on change de directeur ça c'est récurrent on change souvent en fonction vraiment des objectifs et en fonction des niveaux de collaboration parce que qui est illégal aussi da ngeen di war a déggoo su ngeen déggantewul moom déggoo ko tinoo ko euh, faale mais du ngeen avancer ñi mon and, ni and. puisque y a y a tout le monde est compétent ñoom ñëpp benn école la ñu génn kon dañuy jàpp leen ñoom ñëpp compétent nañu soo mënul ànd ak kii liggéey ak kii nga jël moromam ngeen liggéey bu ngeen seen kii bi su nekkee benn ngeen ànd liggéey loolu vraiment amul si amul luñ ci war a coow su dul bëgg coow rek. mais li ñu coow rek ñi dafa découvrir détournement 1,5 milliard. loolu wax naa loolu du mot moo ko découvrir c'est le système moo koy découvrir donc du du loolu rek c'est des contrôles de routine c'est des inspections qu'on ko découvrir mais c'est pas parce qu'on a découvert ça que le changement ne s'opère pas que l'activité que du duñ ko ah. donc c'est des actes de gestion qui se font tous les jours donc ce n'est pas lié ni de près ni de loin wax na man li ma soxal man retraité man retraité wu donc euh, dans d'autres endroits la euh, ay der bu yàqu loolu loolu sanction yi ku jël xaalis poste muy ki ki ki fiy liggéey travailleur yi mooy fournisseur ñoom ñëpp dañ nañu fay jusqu'au dernier centime loolu c'est un principe loolu kenn du ko mun a déroger ni man tey ni directeur bi fi ñëw suba ni directeur yi fi passé et donc parce que c'est de l'argent public donc loolu jarul coow surtout léegi dossier bi c'est mu ngi justice kañ ñun ñëpp dañu war a wóolu justice ñu ñëwaat toog liggéey dal c'est à cela qu'on appelle vraiment loolu la ñuy woote. monsieur le directeur bi ngay tàmbali say kàddu nee kër gi di poste dafa suuf kër nag buy su ngi gaal xëy ne borom gaal da ngeen jéem a jël ay pexe. ñu gis ne bi ngeen demee ci assemblée nationale ci bor budget bi sax am na benn député boo xam ne jot na laa digal yenn ci ay jéego yi ngeen war def bokk na ci dugal xale yi nga xam ne ñoom yëngu ci wàllu càkkat bi ngir que poste mën a yor yeneen prof ndol yoo xam ne dina ci mën dugalee koppar waaye tamit fexe ba moderniser ko maanaam méngale ko ak xarala yu yees yi ba nga xam ne euh, kër gi du daanu ana yan fexe nga fas yéene jël ci loolu. waaw ah, jërëjëf euh, donc si laajte boobu ah effectivement euh, poste suñ ko sur le plan juridique bu dee yoon kese la ñun sax existé wuñu parce que sur le plan juridique dañu war a tëj suñu boutique yi waaw ah, amatuñu parce que voilà mm-hmm. donc. Euh, mais euh, état bi moo ñu jàppale. moo tax ñun ñëpp dañu war a coopérer ak état parce que moo tax ba léegi ñu ñu mën a liggéey alors loolu su weesoo suñu produit traditionnel xam nga mooy courrier loolu xarale yu bees yi dañ ko dañ ko rendre obsolète loolu mu ñu mënuñu si gagné lu bëri parce que ñun ñëpp kenn du def pratiquement courrier euh, wàññeeku na bu baax donc euh, yooyu yëpp euh, euh, xayma nañ am na xam nañu vraiment il faut que ñu repositionné wu ñu ñu indiwaat yeneen activité yeneen relais de croissance mais activité yooyu d'abord suñu liggéey traditionnel ba léegi am na état bi waxul ne léegi amatul donc am na parce que suñu mission service public la donte que dañuy perte mais ku nekk fongo lim bi suñu amee benn lettre Dakar dañ koy yóbbul ba Fongolim bi loolu mission service public la dañ koy def parche état bi mu ngi ciy jàppale ñun tamit ñu ngi liggéey pour rendre efficient loolu wax naa leen ren euh, d'ailleurs euh, du point de vue croissance euh, daanaka li ñu amoon li ñu am ren moo ëpp li ñu amoon daaw sur la même période donc ñu ngi def ay jéego mais du ñu yem foofu dañuy xool yeneen activité yu méngoo ak xarale yu bees yi pour ñu moderniser wu parce que poste euh, danaka on n'est pas très modeste moo tax nous ñu jënd plus de 1000 machines ordinateurs 1000 renforcer le parc informatique automatiser suñu file d'attente donc euh, def euh, organiser ay concours hackathon pour indi ay xalaat yu bees ay produits yu donc ñu ngi liggéey et ñu ngi liggéey aussi pour am banque postale benn banque bi xam c'est pour développer suñu service financier parce que loolu aussi dafa daf ñu bloqué ñu ngi yoral nit ñi seen xaalis mais euh, xam nga sénégalais dañu am projet mais mënuñu financer kenn parce que amuñu banque euh, moo tax aussi suñu client yu bëri ñoo ngi dem donc euh, ñu ngi liggéey si en tout cas si instrument yooyu yëpp pour suqali poste. waaw oh, en tout cas suñu xoolee tey suñu besoin personnel méngoowul ak suñu am-am suñu koom-koom ren soo par par année à peu près 8 milliards de suñu masse salariale euh, euh, dix huit milliards donc gab boobu euh, c'est-à-dire ni day dañuy donc au-dessus de nos moyens parce que tout simplement état bi à notre secours donc loolu nag à un moment donné dañuy épuiser suñu ressources yëpp donc dañu war a am benn taille bi nga xam ne moo méngoo ak suñu am-am suba suñu amee ay ressources nouvelles suñu amee mun nañu recruter mais effectivement suñu masse salariale suñu personnel ak suñu charge ak suñu produit vraiment am na fossé donc euh, à la kuleali soit tey wala suba euh, ak avec la décision de l'État cette orientation il faut ñu xoolaat mbir mi donc il faut ñu gën a réorganiser suñu ressources humaines yi. waaw bu bu weesoo restructuration boobu ndax euh, poste askan ñu bëri jàpp nañu ne patrimoine la waruñu koo bàyyi mu nax saay euh, est-ce que amul yeneen i pexe yoo xam ne dina gën a gaaw pour bañ a dee. mais pexe mooy pexe pexe yu ñu wax rek pour mu bañ a il faut nañu liggéey pour euh, am activité yu bees yi nga xam ne ñuy jox développer suñu suñu activité am un relais de croissance euh, donc diversifier aussi suñu produit yi mënuñu euh, des rek si suñu produit yi il faut ñu ut produit yu bees yi tirer croissance suñu croissance euh, donc si loolu la ñuy liggéey et si ñu développer suñu service financier ñu yóbbu ko banque ñu am ay ressources supplémentaires pour faire def face à suñu charge yi waaw directeur am na am na li nga waxoon sànq tamit ne coow li bëri na mu ngi yàq image entreprise bi te am nañ am nañ sa yenn collaborateurs yoo xam ne parfois dañuy exiger sa démission est ce que yow en tant ngi toog benn instant xalaat ne ah est ce que coow comme coow li bëri na man lii kii na na xaaral ma démission waaw ah, xam nga man dañ ma sant liggéey dañ ma jox mission te mission boobu xamoon naa ne difficulté yi bëri na ah c'est pas parce que ma dem ba si biir ma gis difficulté yi bëri na que ma ma dem daw Euh, surtout que euh, awma benn problème bu bi nga xam ne euh, personnel man sama liggéey laay def mën na am ñeneen ko ñeneen ñi comprendre loolu accompagner ma wala ñu fustiger ko mais gis naa ñu bëri aussi ñu ma si encouragé donc jàpp naa ne que maa ngi si si dans la la bonne voie jafe-jafe nag day am si kër surtout kër bu mel ni poste bi nga xam ne jafe-jafe kese la woon léegi heure bi pour man euh, du heure dem parce que kenn euh, euh, problème subjectif la tout Mali du tuumal yi nga xam ne loolu tax na nga dem parce que soit amee problème dañuy wax njiit njiit njiit bi la mais sinon amul benn problème bi nga xam ne day tax ma dem loolu man dama am confiance sama patron président de la république je pense que loolu dafa dafa am solo aussi moom euh, heure bu ko neexee aussi euh, mun na ma fi jëlee loolu nag euh, ça ne dépend pas de coow lii wala leneen moom mooy apprécier rek donc loolu la la, ci bëggoon wax donc waxu dem bi pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. waaw c'est vrai dégg naa lool ñu accuser secrétaire général ñu ne dañ ko fi dóor euh, effectivement altercation am na coow li amoon na ñun bi ñu paree suñu conseil moom bi mu euh, génnee d'ailleurs ñoo doon ñoo doon jiitle après moom mu mu génn ma dégg coow ma dégg coow xeex am mais je ma ne bon lii man lii kay c'est pas euh, xeex la woon xeex boobu nag moom gis na xam na ki mu xeexal ak ñi mu xeexal nan leen dénoncé rek wax diw ak diw la mais tuumal directeur général directeur général sori na directeur général ne man la d'abord directement am na ñi mu am na ñi mu na wax diw ak problème mais mais li ma metti li ñuy poste problème violence bi ci poste commencé na am ay ampleur yow maa ngi koy ñaawlu te dinañ ci jël ay mesures violence yooyu nag euh, du du xeex kese parfois verbal bi nga xam ne day démotiver personnel bi de leen di tere liggéey loolu yëpp baaxul ci suñu entreprise dinañ ci jël ay mesures mesures yu fortes ñu dañ koy appliquer aussi sans état d'âme quel que soit euh, ñi ñi ñi kii ñi ko ñi ko sëkk loolu aussi c'est important c'est pas parce que ay syndicaliste la que kenn du leen euh, wax dara waruñu xeex ci biir entreprise bi. loolu ñu koy ñaawlu vraiment. ah ci identification bi nee na identifié na say gros bras entre guillemets ñoom ñoo ko malmené est-ce que c'est vrai. loolu loolu am je je ne pense pas parce que fii amul gros bras amu fi benn gros bras ñun duñu liggéeyee noonu ñun jàmm rek la ñu mut a woote ci kër gi jàmm rek la ñuy woote soxla ñu gros bras euh, pourquoi faire quoi nous sommes ñu tous les jours euh, mais on ne se défend même pas on ne se défend même pas on multiplie ça par zéro parce que suñu mission ñu solo euh, donc en tout cas su ma wala ñu xam ki même si quelques moo ko yónni moom d'abord lay wax moom laa koy après ñu xool moom na wax ki ko c'est c'est c'est loolu mooy dëgg bi vraiment c'est c'est trop facile ah vraiment lépp ñu def ko si si ginnaaw directeur général bon c'est plus facile peut-être parce que du ñu mais mais il faut qu'on soit juste quand même